peut euh, te da ko may na ko mu préparé wu parce que ba mu ko jëlee même ministère de l'économie et des finances da ko def ministère des affaires étrangères xëy na loolu dina ko jox beneen portefeuille relationnel boo xamante ni dina am beneen visibilité bu ci jógee nekk première ministre ça peut être quelque chose euh, boo xamante ni am na solo mais comme li euh, doyen Babacar wax rek c'est vrai que am benn bokk yaakaar c'est nécessaire mais c'est pas suffisant parce que Euh, il faut que nga xool xam ni benn Benno Bokk Yaakaar xëy na dafa soxla woon bi 109 parce que ñu ñëpp jàkk d'accord ni bu bu neexee woon ni mu doon neexee président il va faire il va tenter le troisième mandat mais xëy na am na loo xamante ni am na ci maintenant Amadou il est obligé de créer une nouvelle majorité autour de lui majorité ah non Benno Bokk Yaakaar c'était nécessaire pour mu nekk candidat mais ce n'est plus suffisant boo bëggee nekk président de la république parce que contexte yi bokkul contexte 2019 contexte ak 2024 dafa wuute parce que 2024 il faut plus de plus de jeunesse plus de peps plus d'énergie plus de discours il y tellement de choses yoo xam nga li gën a metti mooy continuer liggéey bu kenn def parce que nit ñi euh, mën nañoo apprécier lu président de la république def mais dans l'histoire du monde ah Churchill sax dafa gañ a gañ ñu jële ko fi yooyu c'est pas quelque part des des, des éléments yoo xamante ne mun nga cee compter wu il faut que moom mu toog jël temps xam ne c'est un candidat à une élection présidentielle être candidat à une élection présidentielle boo nekkee sa confort am na ñu parti am na ñu machine lépp baax na nañ demee noonu là la tu, tu ne comprends rien de la situation pour man euh, il est obligé de mettre en nouvelle majorité le président de la république aussi foo mu may ko déglee les de franche instant bi nii parce que day am chance nekk un un un candidat premier ministre un candidat premier ministre day mel ni un candidat président sortant cest dire bu ko président may espace dina ko permettre moom mu commencer wan sénégalais yi li mu mën parce que les autres candidats xëy na amaguñu amuñu euh, possibilité boobu un président sortant day am possibilité boobu pot moo tax parfois il est toujours reconduit mais comme c'est un candidat euh, boo xamante ni euh, mooy candidat président en place chance bi muy am xëy na mooy ëpp ñeneen ñi parce que moom instant bi si le président lui donne les coups de franche mën na commencer wan Sénégalais yi moom bu nekkee président ban genre président lay doon sa marque pour man lu ëpp solo instant bi nii mooy mu imprimer sa marque la deuxième chose mooy moom intelligence stratégique boo tollee fii euh, humilité bi ministre de ministre di wax léegi mooy euh, xëy na lii du bàkku sas la premièrement la deuxième chose mooy son intelligence ñu ngi koy mesurer ci ñi nga xamante ni dañoo war a dem ñu mu leen di téye parce que loolu mooy moom mooy force parce que président de la république bon xëy na mën na am dafa Covid mais pour man kanam gi la doon nëbb parce que métti na trop nga am ay xarit yoo xamante ni xam nga dañu la yaakaaroon ba fin temps tànnoo leen ça mal tànn dafa métti non tànn dafa métti ñett ñi su ma doon tànn yéen parce que tànn sacrifice la te ay Abdoulaye Daouda Diallo ñooñu ay Boun Abdallah ni ñu mën ci Macky Sall leen bañ tànn mu neex ko si xolam loolu nit dong la du robot du dara no le problème n'est pas que. lui lui euh, nekkul un problème peut-être. no le problème n'est pas que euh, ñu dem ak ñu toog cest dire que le fait que sa xarit. nga tànnoo ko tànn moo métti. tànn tànn ñàkk tànn sacrifice la. quand tu choisis tu sacrifies les autres. sacrifice boobu dafa metti xam nga ñoo xamante ni depuis les pins noirs ngeen ànd dafa metti maintenant la force la puissance de Amadou Ba ñu ngi koy mesurer ci ni muy fexe ba récupérer ñooñu ñëpp. parce que loolu dina dina permettre ñu xam ne kii ñëwagul c'est un rassembleur deuxièmement parce que il faut nga téye li nga yor ba pare soogaa dem wuti wuti leneen te wuti leneen tamit sénégalais yi léegi euh, dañoo nekk ci monde deux point 0 nit ñi ils sont très super trop informés même les gens sont super informés c'est-à-dire comme les dañoo nekk ci monde boo xamante les gens sont super informés dafa am beneen taxawaay boo xamante ni moom la homme politique bi di taxawee te homme politique bi noonu muy taxawee nag pour man eh, jàpp naa ni il faut que moom intelligence stratégique téye benn bokk yaakaar il faut que mu ubbeeku il faut que mu wane en tant que premier ministre ñu may ko les de franche pour sénégalais yi mën a xam moom mii bu nekkee président nu muy defee parce que quand même bu ñu gisee euh, instant bi nga xamante ni mooy mooy mooy le candidat bu ñu gisee ni euh, xëy na yëf yi doxul nuñ ko nuñ ko xalaat mën na am impact négatif ci moom donc moi je pense que il doit être humble il doit accepter les coups il doit seeti dem seeti ñi nga xamante ni tànnuñu leen mettre à l'aise le président de la République parce que pour man président maskam bi c'était dur ay xaritam ay ñi ko gën a jege euh, xalaatoon nekkoon ay candidat mu tànn keneen parce que koo tànn rek da ngay da ngay lu xol nit nit nit dong la quoi xol bi yàlla xam ne ma <laughs> je voulais pas à la place du président Macky Sall tànn dafa metti donc sacrifice yooyu Amadou moo koy oyofalal mooy seeti ñëpp waxtaan ak ñëpp mettre ñëpp à l'aise créer équipe boo xamante ni autour de lui ñi nga xamante ni pour man moom lañ ñoom la ñu waroon tànn sax tànn ñu leen mu dugal leen ci équipe bi ba pare dem ubbeeku ci sénégalais yi. parce que euh, aujourd'hui parti yi bëri na coalition yi bëri na euh, voilà les les certains groupes bëri na il faut que ñu mu àndal ñu jàppale ko parce que fi mu jëm dafa métti combat c'est pas c'est pas